soxna faati sa jóopa soxna faati isa jóopa mi ngi gënee jamono ci dëkk bu ñuy wax nag kokki kër njaga sa jóopa ci dëkk boobu nag di kokki kër njaga isa jóob nag la soxna faati isa jóob nag feeñee jamono di doomu soxna ab sa mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ kokki njaga isa jóopa ñaari jëmm yooyu nag ñoo séq soxna faati isa jóob mii am na nag ñu mbokkal nag soxna ab sa mbàkke ak sëriñ kokki njaga isa jóopa ñu mën caa ràññee nag soxna aminta njaga jóopa bintu soxna ab sa mbàkke bintu sëriñ kokki njaga isa jóopa jóopa bintu soxna Absa Mbàkke bintu sëriñ Kokki Njaga sa Jóob ak moom soxna Faati Isa Jóob bintu soxna Absa Mbàkke bintu sëriñ Kokki Njaga Isa Jóob ginnaaw bu soxna sa Mbàkke nag jógee nag ci loxoy sëriñ Kokki Njaga sa Jóob daa demoon nag ci sëriñ Muttu Fa Ture moom soxna sa Mbàkke am na benn doom nag ak sëriñ Muttu Fa Ture muy ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Ture ñaar nag la soxna Faati sa Jóob nag bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak kenn nag kum bokkal waajur wu jigéen nag te bokkuñu waajur wu góor muy sëriñ Ibrahima Ture moom sëriñ Moustapha Touré njaboot gi soxna Faty Issa Diop nag bokkal waajuru góor ak waajur wu jigéen ngir xamale leen nag ñoom nag ñoom ñooy ñan soxna Aminta Njaga Diop bintu soxna Absa Mbàkke bintu sëriñ Kokki Njaga Issa Diop bi mu matee dem kër sëriñ Masamba Diop nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Masamba Diop nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Maxtaar Masamba Diop soxna Xadi Masamba Diop ak soxna Faty Masamba Diop sëriñ Maxtaar Diop mii nga xam ne nii la ku jaxasoo woon ak maam Ceerno Ibrahima Faty Mbàkke Mbàkke ndaamal daaru la bi mu génnee àdduna ci bayti fi ñu denc maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sax nag lañ ko denc ñaareelu doomu soxna Aminta Njaga Jóob mi ak sëriñ Masamba Jóob di soxna Xadi Jóob Masamba bi mu matee dem kër Cheikhul Xadim nag lañ ko jébbaloon mook Cheikhul Xadim nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag ku ñuy wax sëriñ Moodu Abdoulahi Mbàkke ñetteelu doomu soxna Aminta Njaga Jóob bi di soxna Faati Masamba Jóob bi mu matee dem kër moom itim ku baax ki sëriñ nag lañ ko jébbaloon ba tax na mook Cheikhul Xadim xaddiim itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee na ku ñuy wax soxna assu mbàkke mbàkke kajoora ñaareelu doomu soxna absa mbàkke bi ak sëriñ kokki njaga isa jóob di soxna ndumbe xari jóob bi mu matee dem kër sëriñ ma dun faa xuja jóob nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ madun faa xuja jóob nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee ku ñuy wax sëriñ madun penda jóob ak sëriñ maxtaar penda jóob sëriñ madun penda jóob mi nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tuubaa xaadim rasuul nag la bokkoon seexul xaddiim ci dëkk boobu itam nag di mbàkke kajoor itam nag la ko féetale woon ci mbàkke kajoor feebar googu sax nag la génnee àdduna bi mu matee taxawal kër cheikhul xadim nag moo faboon doomam itam nag jébbal ko ko muy soxna assu mbàkke kajoor sëriñ dun pend jóob mii nag sëriñ tuuba cheikhul xadim nag jébbaloon soxna assu mbàkke kajoora mook soxna assu mbàkke kajoor ñoo njëkk indil nag cheikhul xadim nag ab sët ñeenteelu doomu soxna ab satu mbàkke bi ak sëriñ mu muttu fa turé di sëriñ ibrahima turé ab satu moom meññ ku ñuy wax sëriñ omar turé sëriñ omar turé mii nag ci jàmbaar toppoon nag ci ginnaaw maam ibrahima faati mbàkke ndaamal na njabootam ñi ngi nag ci dëkk boobu nag di daarul muxti njaboot gii nag la soxna faati isa jóob bokkal nag waajur wu jigéen moom soxna faati isa jóob nag di doomu soxna absatu mbàkke ak sëriñ kokki njaga isa jóob bi mu matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ kokki njaga isa jóob nag moo ko dalal alxuraanul karim ci loxoy waajuram nag la jànge alxuraanul karim itim nag ba mokkal ko mu wéy nag des nag ci loxoy waajuram soxna absa mbàkke ci dëkk boobu nag di kokki kër njaga isa ba mu matee dem kër ñu jébbal ko nag maam mor mbàkke mi waajuru cheikhul xadim xaadima bi mu ñëwee nag ci loxoy Mamor Anta Sali Mbàkke mook Mamor Anta Sali Mbàkke nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag ku ñuy wax sëriñ Daam Faati Mbàkke ibnu soxna Faati Isa Diop ibnu Mamor Anta Sali Mbàkke sëriñ maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ibnu soxna Faati Isa Diop ibnu Mamor Anta Sali Mbàkke soxna Aminta Mbàkke bintu soxna Faati Isa Diop bintu Mamor Anta Sali Mbàkke soxna Faati bintu Mbàkke bintu soxna Faati Isa Diop bintu Mamor Anta Sali Mbàkke ñeenti bant yi nag la soxna Faati Isa Diop am ci Maam Mor Anta Sali Mbàkke ñeenti bant yi nag soxna Faati Isa Jóob nag am nag ci Maam Mor Anta Sali Mbàkke ñoom ñooy ñana sëriñ Daam Faati Mbàkke laataa muy samp kër nag génn na àdduna maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moo sanc nag dëkk bii nag di daarul moxti soxna Aminta Mbàkke moom soxna Faati Isa Jóob bi mu matee dem kër sëriñ Ndaam Abdourahman Lo bokkoon ci nag ci jàmbaar yi toppoon nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag lañ ko jébbaloon soxna Aminta Mbàkke mook sëriñ Ndaam soxna Faati Lo soxna Aminata Lo soxna Assu Lo ak soxna Mareema Lo soxna Faati Lo nag moom sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo ak soxna Aminata Mbàkke nag lañ jébbaloon sëriñ Amar Fall Mbàkke nag bu Mbàkke Kajoora soxna Aminata Lo nag bu sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo ak soxna Aminata Mbàkke lañ jébbaloon Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke soxna Assu Lo bu sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo ak soxna Aminata Mbàkke nag lañ jébbaloon Cheikh Mamadul Fadal Mbàkke soxna Mareema Lo moom sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo ak soxna Aminata Mbàkke lañ jébbaloon nag Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke soxna Faati Bintu Mbàkke moom soxna Faati Isa Jóob nag ak Maam Mor Anta Sali Mbàkke bi mu matee dem kër nag lañ ko jébbaloon nag sëriñ Ahmadu Ndumbe Xabaan bokkoon itim nag ci jàmbaar yi toppoon nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mook sëriñ Ahmadu Ndumbe Xabaan nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee sëriñ Muudu Xabaan Mbàkke ak soxna Faati Ndumbe Mbàkke soxna Faati Ndumbe moom soxna Faati Bintu Mbàkke nag bi mu dem kër sëriñ Muudu Maamun Mbàkke nag bu Daaru Salaam nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Muudu Maamun Mbàkke nag bu Daaru Salaam am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Omar Mbàkke Mbàkke ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Muudu Maamun Mbàkke nag bu Daaru Salaam la demoon nag Mérina Sill mu am fa nag ku ñuy wax sëriñ Koso Sill njaboot gii ñu leen tuddal nag njaboot yi ñu am ñooy lenn nag ci sëti soxna Faati Isa Jóob yi ma wax leen sax soxna Faati Isa Jóob lu ko indi nag ci loxoy Mamor Anta Sali Mbàkke bi Mamor Anta Sali Mbàkke nag taxawalee kër dëkkoog nag soxna suñuy wax nag soxna na na xelam itam nag nekkaatoon nag ci jël nag baneen soxna dëkk bii di kokki itam nag la xalaatoon a jëlee nag baneen soxna soxna suñuy wax nag soxna Roqaya bitim nag la xelam damoon ginnaaw bu mu eggee kokki nag ngir waxtaan ak waajuri soxna Roqaya Jóob jël ko nag comme soxna bi mu la xam ne soxna Roqaya Jóob mii nag may nañ ko nag boroom kër soxna Absatu Mbàkke nag ma nga woon nag ca kër ga moom itam nag xel ak xalaat bi Maam Mor Anta Sali Mbàkke amoon ci soxna sii nag di soxna Roqaya Jóob te ñëw itam nag fekk nag soxna Roqaya Jóob nag am boroom kër soxna Absatu Mbàkke itam nag amoon na kersey Maam Mor Anta Sali Mbàkke nag dellu nag ci loxoy kese taxoon na mu waxtaan ak doomam nag soxna Faati Isa Jóob waxtaan itam nag ak càmmiñam nag Maam Mor Anta Anta Sali di ko xamal ne soxna Roqaya Jóob mii nga xalaatoon nag ñëw nag fekk nag ñu may ko boroom kër nga delluwaat bawal nag ak sa loxo loxoy kese itam dana ma tiis lool ma bëggoon nag bu fekkee na sama doom ji nag jubu na la di faati Isa Jóob ma jébbal la ko nga dëkkoo ko nag comme soxna xalaatub soxna ab sa Mbàkke boobu itam Maamoor Anta Sali Mbàkke itam nag fekk si na ko ca kon lii moo tax nag ñu jébbal soxna faati Isa Jóob nag Maamoor Anta Sali Mbàkke waaye bi muy jóg nag ñuy wax soxna Roqaya Jóob nag nag bi ne kokki ku ñuy wax nag sëriñ ibrahima pend buyo nag lañ ko jébbaloon soo delloo nag ci way yii nag cheikh moussa ka defal nag maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ci bi fi maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru nag bàyyi ko ci bim ñuy wax nag jaloorey maam ceerno mag ñuy nettali nag soxna faati isa jóob nag ci biir marsiya ba ni mu ñëwee nag ci loxoy mamor anta sali mbàkke bisub keroog nag soxna roqoye jóob mi nga xam ne nii nag moo nekkoon nag ci xelub mamor anta sali mbàkke te mu egg kokki nag fekk nag ñu jox ko nag sëriñ ibrahima pend buyo te soxna absatu mbàkke nag di mbàkke sa yaakaar nag duma ko tas sama doom ji nag di soxna faati isa nag bu la juboo nag ma jox la ko sababub histoire ba ak ni Mamor Anta Sali Mbàkke def daal ba jot nag ci loxoy soxna faati isa Diop moom la ñu Cheikh Moussa Ka nag tënkal nag ci ay way ñu teewlu ko masulliwaat tey jële booti cerno yoo xam ne jomb na gone bii xarnu na ngeen ko dégluwaat te dollee farlu sër di bu dee wattal na seeti parlu xaalis bi ngeen di xas-xasee di xëccoo ak mbubbi la kat laa leen a feeñal dug seetal nuy leen sunuy nopp ba ma mor anta di seeti kokki di labat la gont keroog la ñaan loo mbàkki junni bi yaasin ànd ak sëriñ sëpp ba koy dal baasin ba ñu demee ba àgg réewum kokki ba mu nuyoo xamuñu santu mbàkke ka ko taxoon a jóg ñu naa ko roqaya ñu may ko ibra pend booyee tarxiya ñu di ko ree naan ko wallaay njol mbàkke yaa mën a jàng waaye dëkkoo kokki mam samba aminatu naa ko mbàkke doo mën a am fii soxna maa kokki ahmadu aminatu dem na booba naa ko mbàkke mat nga li nga doon waaye ku ñaan ku la xamul ak may du duur keroog la sun maam ab sa mbàkke laxas ñu nañ ko may sandoom si mbaama laxas ñu daal di déey dajale mboolem ma asura yi nii di rayim jaay sëriñ mamar a jox ko sa defoon xaalis ba rot na fa njaañ ba ñuy dawal fa bar ba maam sëriñ jatara moo ko dencoon mooy bëkk néeg ba moom la góor gu fonkoon ba ne tasax ndaw jaaxle mboolo mu ñëpp naa ko dootoo baaxle bay dee la yeggee ñëpp wax bañu wedam maam ab sa mbàkke Mbàkke ni fa sees ñu ne xeram Ahmadou Seck sama maam gawar ba moo ko ni suñ xaalis ba rot na booba maam Asta Mbàkke daal di tijji gaalam génne juróomi saako ngurdu li am sarax ko foofee sunu maam Mor Anta ni ko na doomi Faati mii mel ni jant loolu ñu Cheikh Moussa Ka xamal nag ci la maam Mor Anta Sali Mbàkke nag jotee nag ci soxna Faati Isa Diop waaye bisub keroog itam bu ñu sukkandikoo nag ci mbindum Cheikh Moussa Ka ñuy xamal ne maam Mor Anta bi mu yóbbaale woon ngir ñu jébbal ko nag soxna Roqaya Diop xaalis boobu itam nag dafa mujj wadd nag ci dëkk bu ñuy Aminsatu Mbàkke nag dogoone nañ ko jébbal nag doomam nag soxna Faati Isa Diop bi Mamor Anta Sali Mbàkke nag di xaalis ba gisu ko ku ñuy wax nag Baay Sëriñ Jatara nag bu Mbàkke Bawal moom la Mamor Anta Sali Mbàkke nag àndaloon soxna Absatu Mbàkke itam nag moo mujj génne xaalisa jox Mamor Anta Sali Mbàkke ngir ñu jébbal ko nag soxna Faati Isa Diop soxna Absatu Mbàkke nag di xamal Mamor Anta Sali Mbàkke itam sama doom jii ma la jébbal damaa bëgg itam njaboot gi muy am itam nekk nag ay jant wala ñu meññ itam nag ay jant Mamor Anta Sali Mbàkke nag jël nag soxna Faati Isa nag indi ko ci dëkk bii nag di Mbàkke Bawal fépp foo xam ne nii itam Maamoor Anta Sali Mbàkke dem na fa soxna Faati Isa Jóob itam nag ànd na fa ak moom moo xam Mbàkke Bawal xuru Mbàkke ba ci dëkk bii nag di Poroxaan Poroxaan googu itam lenn itam nag ci doomu soxna Faati Isa Jóob itam nag foofu lañ feeña jamono mu nekki nag ku bëgg Maamoor Anta Sali Mbàkke ku yëmaliwul Maamoor Anta Sali Mbàkke ak dara lépp loo xam ne nii Maamoor Anta Sali Mbàkke bëgg na ko soxna Faati Isa Jóob nag loolu moo nekk nag ab yitteem bépp njaboot nag gu Maamoor Anta Sali Mbàkke am itam njabootuk soxna Faati Isa la soo delloo nag ci way yi Cheikh Moussa Ka way soxna Faati Isa Diop ci marché ya nag bi mu doon defal maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mi ngi koy xamal ne ku fonkoon nag sa mag nga muy soxna Anta Njaay Mbàkke waaye ku bëggoon nag sa rakk nga muy soxna Jaaratullaahi day dëggal ne soxna Anta Njaay Mbàkke nag moo ko jiitu ca kër ga waaye moom itam nag moo fa jiitu soxna Jaaratullaahi bëgg googu mu bëggoon Maam Mor Anta Sali Mbàkke bëggaale ko ak njabootam tax na itam nag lépp loo xam ne nii nag Maam Mor Anta Sali Mbàkke am na ko mu bëgg ko bi fi Maam Mor Anta Sali nag du donn nag maam Mor Anta Sali Mbàkke soxna Faati Isa Diop moo ca jàppale nag maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ba bëgg-bëgg Seexul Xadiim boobu nag am bëgg bëggoon maam Mor Anta Sali Mbàkke ba bëggaale ak njabootam itam lépp loo xam ne ni Seexul Xadiim nag mas na ko koo wax itam mu gëm ko jàpp ko firnde bi rek mooy bi Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag demee ci géej gi tubaab bi nag doon bind ay lettre nag mag ñi di leen xamal ne nag seen waa ji ma fi jële woon nag sànk naa ko saa mag ñi masaa jaaxle soxna Faati Isa Diop nag moo leen di xamal ne Seexul Xadiim de mas na ma wax ne saa bu ma génnee àdduna moo may yoor nag ci biir bàmmeel lépp lu seexul xaddim wax dana ko def jërul ngeen di sonn jërul ngeen di jaaxle seen waaja nag génnagul àdduna ndax maa ngi fi bëgg googu mu bëggoon seexul xaddim itam nag tax na seexul xaddim itam nag tudde na ko dooma muy soxna Jóob Mbàkke bintu seexul xaddim la soxna Faati Isa nag muy waajuram nag la ko fayee cofeel gi soxna Faati Isa Jóob amoon nag ci doomam seexul xaddiima seexul xaddim nag mas naa am nag borom ñetti dërëm nag yu munta fay axasida itam nag la ko ab naar nag jaayoon ginnaaw bu mu wëree réew réew mi nag moo rakkam maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di wër nag ñetti dërëm nag yuñ faye naar ba bi ñu wëree nag mbooleem tundu kajoor weeg bawal ak njàmbur wi nag te mënuñu koo am soxna Faati Isa Jóob moo jaay nag ay takkaayam jébbal ko maam Ceerno nag mu jëbbal ko nag Cheikhul Xadiima histoire bi nag soo delloo nag ci marché bi Cheikh Moussa nag defal maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci bi fi maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag bàyyi koo ca pàcc ba mu jagleel nag soxna Faati Isa Jóob man ko fay nettali ñu teewlu Kajoor wër nañ bawal wër njàmbur ngir bëgg a am ñetti dërëm bay jàmbur jaay nañu jaay kaamil ba kenn jëndul ko te muy mbindum Cheikh Bamba kenn yëgul ko maam Faati Diop jox na keroog maam Thierno ñetti dërëm Cheikh Bamba fay na day mu wéy nag topp nag ci ginnaaw maam Mor Anta Sali Mbàkke toppit nag ci magam soxna Anta Njaay Mbàkke ànd ak rakkam nag soxna jaaratullaahi nekkit sëtub maam Maaram Mbàkke hmm? mook soxna jaaratullaahi nag ñoo bokk nag soxna Faati Isa Diop Mbàkke nag mooy Mbàkke nag mooy waajuram Ahmadu soxna Busa Mbàkke maam Maaram Mbàkke nag mooy waajuram soxna Jaaratullaahi maam Assa Waalo Mbàkke nag mooy waajuram maam Assa Waalo Mbàkke Ahmadu soxna Busa Mbàkke nag mooy waajuram Ahmadu soxna Busa Mbàkke maam Maaram Mbàkke nag mooy waajuram Sëriñ Tuubaa ak maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ñoo bokk menn maam mi muy Ahmadu soxna Busa moo meññ soxna Absatu Mbàkke mi meññ soxna Faati Isa moo meññ itim nag soxna Assa Waalo Mbàkke mi meññ soxna Jaaratullaahi soo delloo nag ci mbindum Seex Moussa Ka ma ngay wax ne ñaari jëmm yooyu nag ñoo bokk menn maam muy Ahmadou Soxna Bousso ñu lu ko ngëneeli saahir ya mu bokk ak Bamba ci wàllu maam moo tax mu attan yen ba Ahmadou Soxna Bousso moom maam ma aram moo sempi raayow maami Mbàkke fa këram seen yaari maam yaa bokk bàyyi fa Mbàkke ñu dellu bokk benn bàyyi am barke maam astawalooy ndey soxna jaara bu dul kon ak moom kenn du sampi daara maam ab sa Mbàkke ndey soxna faati ñii ndey maam Cerno mi xara aadaat yii yaari maam ñoo bokk genn góor ga Ahmadou Soxna Bousso woy naa géer ci ginnaaw maam Mor Anta Sali Mbàkke nag la wéy nekk ba ni fi Maam Mor Anta Sali Mbàkke nag bàyyi ko mu wéy nag topp nag ci ginnaaw ay doomam Cheikhul Xadim ak Maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mu doon xamal Cheikhul Xadim itim turaayu bàmmeel nag da koo ragal Cheikhul Xadim itim nag di ko xamal ne saa bu ma la yooree nag ci biir bàmmeel nag sa xel dana dal taxoon na soxna Faati Isa Jóob itim amoon yaakaar itim nag ci doomu soxna jaara bi bi Cheikhul Xadim nag demee ci gi ba ni mu ñibbisee dem gànnaar nag ñëw ca yéen jolof la ko woolu nag ci ca génnee àdduna nag ci atum 1907 bi soxna Faati Isa Diop na génnee àdduna bisub keroog nag sëriñ Ahmadou Penda Diop nag mi ngi doon xalaat nag cim xelam seexul xadim soxna sii mu denc nag ci Ceyeen Jolof Ceyeen Jolof nag dañ ko fee indi dong bu ëllëgee nag mën na fee jóge dëkk bi nag gent ginnaaw bu seexul xadim nag wooloo sëriñ Madun Penda Diop nag la ko doon xamal ne soxna Faati Isa mi nag topp ma ci ak baaxa topp ma ci itim nag aada su ma ci doon topp nag aada dama koy delloo kokki nag kër waajuram su ma ci doon topp baaxitim dama koy denc déq jàqale nag ca Mamor Anta Sali Mbàkke waaye suñ boroom nag ko denc nag ci ca yéen jolof gii soxna si nag fii mu tëdd wéttal moom du ko ñàkk mukk lakk gu metti nag amee nag ci dëkk boobu nag di ca yéen jolofa Abdou mi nga xam ne ni nag moom la waajuram maam Thierno nag dénkoon barab bi ginnaaw bu daay gu metti nag amee ca yéen jolof nag te barabu soxna si nag bokkul nag ca daay ga mu soloonu dàllam nag ñëw daarul moxti di xamal daal sëriñ Modou Awa Balla Mbàkke de fee daal ko mat a fonk la ndax daay gu metti gii nag am ca yéen jolofa bi mu ñëwee daal ba jub barab bi nag dafa fay ma yaakaar ne ki tëdd fii nag nitug suñu boroom la booba nag sëriñ fàllu mbàkke asu jéy nag ma nga fa woon moo sàkku itam nag ci waajuram sëriñ moodu awa balla mbàkke bu ci amee ndigal dana ñëw nag defar si barab bi sàmmitim nag ndonal soxna faati isali ginnaaw bu mu ci amee ndigal nag ci atu 1966 ci 1966 boobu itam nag la ñëw ca yéen jolofa seet si nag barabu maamam bi 66 nag ba nëgëni sëriñ fàllu mbàkke asu jéy nag mi ngi sàmm nag ndonal maamam fekk si nag wax ja seexul xaddim waxoon nag sëriñ Madoune Penda Diop ginnaaw bu sëriñ Touba seexul xaddim nag jógee gànnaar nag ci atum 1906 ci 1907 nag la bindoon lettre nag maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di ko xamal ne daal sa waajur woowu nag laa bëgg nag mu fekk si ma jolofa ci dëkk bi nag di ceyeen ceyeen nag digganteem ak Louga fanweeri kilomètre ak juróom nag moo dox nag ci seen diggante bi maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag yëgalee loolu nag soxna Faati Isa Diop di ko Touba Seexul Xadim mi ngi sàkku nag nga ñëw nag ca yéen Jolof soxna Faati Isa Jóob nag mi ngi doon xamal maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru woo gii ma Seexul Xadim woo nag foofu mu nekk àpp ba nag dafa mel ne dafa jege si loolu nag soxna Faati Isa Jóob nag baamtu na ko ay yoon nag ci maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru maam Ceerno itim nag bi muy yónnee ay ndaw nag ñu yóbbu soxna Faati Isa Jóob lépp loo xam ne nii daal war na ci ci bu génnee àdduna nag ko nit nag soxna Faati Isa itim nag yóbbaale na ko ci yéen Jolof ginnaaw bu mu egsee nag moom soxna si nag ci yéen jolof fa ba nuyonteeg ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul fa ko Seexul Xaadim dalaloon ay fan yu néew nag lañ ci tekk soxna si nag génn àdduna soxna Faati Isa Jóob am na ay tur nag yu bari yu ñuy wooye nag ay turandoom nag te wuutee am na ay turandoom nag yu ñuy wooye maam Isa am na ay turandoom nag yu ñuy wooye soxna Faati Isa am na ay turandoom nag yu ñuy wooye soxna Jóob am na ay turandoom nag yu ñuy wooye nag maam Faati ak yeneen ak yeneen i tur nag yu ñuy wooye doomu sëriñ Kokki Njaga Isa Jóob bi soxna Faati Isa Jóob nag mi ngi génn àdduna nag bisub àjjuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wii nag di weeru diggu tabaski ci atum 1325 ci gàddaay gi ajjuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wii nag di diggu tabaski ci atum 1325 ci gàddaay gi dëppoog muy vendredi 27 décembre ci atum 1907 vendredi 27 décembre 1907 doomam ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moo ko jullee nag sàkku itam nag ñu jébbal ko boroomam nag ci Ceyeen Jolofa ci kër gi mu amoon foofu nag di Daaru Raxmaan bisub kero sax bi soxna Faati Isa Jóob nag génnee àdduna sëriñ sëriñ Touba cheikh Mamadul Moustapha Mbacke moomam nag la woolu di ko xamal ne damaa bëgg na nga tànnal ma nag ay góor yàlla yu dëgër nag te man nag li ma bëgg ginnaaw bu ko cheikh Modou Moustapha Mbacke wutalee ba noppi seexul xadim nag mi ngi leen doon xamal ne na ñenn ñi dem nag defar nag fi ñuy denc soxna si ñenn ñi itim nag toog nag di jàng alxuraanul karim ginnaaw bu ñu wéyee leen ndigalul seexul xadim li ba noppi la seexul xadim nag sàkku nag ci soxna Faati Isa Diop ñu denc ko nag ci daaru raxmaan googu nag bërëb bam doon jullee biñ muy fanweeri fan nag ci mois de décembre ci atum 1907 buuna njaay nag di doomi alburi yëgoon na ne daal soxna faati isa jóob nag génn na àdduna jóge woon na jolof itim ñëwoon na itim nag di ziyaari si ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul doon ko yëgal na itim nag damaa yëg ne daal ne sa waajur nag daa génn àdduna nag ma doon la ko jaale si bañ ca tegaatee nag juróomi weer la seexul xadim nag bind lettre maam Cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru di ko xamal ne man ngaa ñëw nag ca yéen jolofa seet si nag soxna si keroog nag bi maam Cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru di ñëw ca mbooloo moom àndaloon sëriñ paate silla nag bu diiwaan itim nag ci la bokkoon aw xeer itim nag la maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru jëloon bind see itim nag turu soxna si di màndarga itim nag na fii la tëdd xeer woowu nag bi sëtam sëriñ fàllu mbàkke asu jee nag demee ca yéen jolo fa sulliwaat na xeer wa nag ba gis ko appal itim nag bu nekkoon foofu itim la maam Ceerno itim nag dénkoon barab ba di ko wax ne itim nag damaa bëgg itim nag sàmmal ma barabu soxna si lépp lu waroon itim nag ca pël ba ci dund maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru itim nag moo ko ca daa def fonk nag gu sëriñ Touba Seexul Xaddim nag fonkoon waajuru maam Ceerno Ibrahima Faty Mbàkke ndaamal daaru wii nag di soxna Faty Issa Diop na nag ñu baree baree bari nag ci mag ñi bind nañ nag ay marsiya jagleel ko nag soxna Faty Issa a ràññee nag ci mag ñooñu ci soxna Faty Issa Diop Serigne Mansour Diaw bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon nag ci ginnaaw ku baax mu làqoo mag ñuy wax nag farlu nag gu soxna Faty Issa Diop farlu woon bëgg gum bëggoon nag ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul yaakaar itam nag gum amoon nag ci yaakaaru jaam ñi jikko yu yaatoo yaatoo yaatu daal la ñu sëriñ Mansour Jaw di ñu xamal daal ci marché bi mu defal nag soxna Faati Isa Diop ci kàllaamay arab itam nag la ko sëriñ Mansour Jaw def ñu teewlu ko abki wa arju bihi ridan min allahi ala habibatina habibatillahi ummil fata cheikh ibrahima qudwatina cheikh shuyuqi habibi qaadimillahi ahin ala jaddatin tumdi nasihataha fi jumlati alxalqi dhati alfadli waljaahi ahin ala ummina أم الكرام معا من شأنها حب أهل طاعة الله كريمة عملا شريفة نسبا رفيعة رتبا عابدة الله حسنة خلقا واهبة أملا عميقة حسبا مريدة الله مؤمنة بإله العرش مسلمة محسنة أبدا حليلة الله غابت إلى الله عنا يوم غيبتها ساكنة في جنان الله والله آه على جدة أديبة دعيت باسم ابنة المصطفى الهادي إلى الله آه على جدة طفت قلائقها تابت مناخ تعقبها صارت إلى الله آه على جدة خانتة رشدت من كان ديدنها ولاية الله آه على فقد أم ذات معرفة بالخير آمنة مطيعة الله أم لها لبن من كان مرتدعا منه ينال الخير حكمة من الله تقية الله في سر وفي علن محبة لخديم الله لله تدافع الكنز للعافين خاتبة تلاسم الذكر والشوق إلى الله والدة صلحت ليس لها مثل في البر والجود والبعد من الله لها من الفضل ما لا يهتم yastawi xalam xattan wala miqwalun zikrun lada allah rabbi irdi anha wa jaaribha bi maxfiratan bi cheikh ahmad hubbi rabbihi la soxna faati isa jóob nag ay xalifaam nag nii la tëddee li ko dalee nag ci atum 1907 ba ci atum 1943 doomam maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru nag moo ko nekk ci atum 1943 ba ci atum 1966 njaboot gi nag ñi ngi doon wéyal nag seen donal maam li ci atum 1966 nag ba ci atum 2012 sëriñ fàllu mbàkke a sujjeey ibnu sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke moo yore nag ndonal maamam nag di ko sàmm ci atum nag ba nëgëni doomu sëriñ Fàllu Assu bii di sëriñ Basiiru Mbàkke nag ibnu sëriñ Fàllu Mbàkke Assu mooy sàmm nag ndonal maamam jële ko nag ci waajuram soxna Faati Isa Jóob nag am na bis nag buñ koy fàttaliku nag ci liñ tudde ak màggal ginnaaw nag bu fa sëtam bii demee nag ci atum 1966 daana def nag at mu jot mu delluwaat nag ci barabu maamam boobu wàcce fa nag ay kaamilu mu koy wéyal nag ba tabax nag barabu maamam bi ca bis bi nga xam ne nii nag ci la tegoon nag xeer wa bis boobu itam nag moo dëppoo woon ak ñeenti fan nag ci weeru digg daana def itam nag ñeenti fan nag ci weeru digg wu mu dajale nag képp ku yaakaar nag soxna Faati Isa nag wala nga gëm ko ci dëkk boobu nag di ca yéen Jolof ñu màggalal ko ko ci atum 1997 nag lañ bàyyi nag ñeenti fan nag ci weeru digg ci 1998 nag lañ tàmbali saa bu ñu jàppalee soxna jaara ab bis nag ba noppi jàppal nag soxna Faati Isa Jóob itam nag ab bis sëriñ Fàllu Mbàkke Asu Jéy nag daana wax ne bu ñu jiitu soxna jaara nag buñ ko jiital bàyyi saa bu ñu màggalee soxna jaara ba noppi nag doog a fàttaliku nag soxna faati isa Diop ci dëkk boobu nag di ca yéen jolofa màggal gi nag ñaareelu xalifa maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di sëriñ Abdul Xuddoos Mbàkke moo joxe ndigal li nag ñuy fàttaliku nag maamam ji nag soxna faati isa Diop ñuy ñaan ca sëtub kokki ba soxna faati isa Diop yàlla nañu ko yàlla fayal nag te yokk ay leeram taas ñuy tim nag ci barkeem lii di jafe-jafey réew mi tim nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajey nag ka ko wowoon ca yéen jolofa amiin yéen